mais xam nga Ousmane Sonko ba muy sécuriser Habib Sy dafa sóoraale woon au cas où sa candidature est retenue Habib Sy se retire et Habib Sy a même xam na bu yàgg ni am duñ ko retenir vidéo yi mu def nii sax war na ne moom xam na bu yàgg xamoon na ni candidature am ko retenir xamoon naa ni gars yi nañ ko teg loxo xamoon nañ ne nañ ko dugal kaso mais waa Pastef hmm. après la validation de la candidature de Diomaye dañu porter la candidature de Diomaye waxatuñu waxu Cheikh Tidiane Dièye waxatuñu waxu Habib Sy ñenn ci waa Pastef c'est-à-dire du waa Pastef yëpp ah, mais na waa Pastef yi non non non mais si non non de mais ban Pastef xam nga man maa njëkk taxaw ban Pastef xam nga man maa significatif xam nga man nga gis porté wul Bassirou Diomaye xam taxaw fii ni la dañuy wax pronostic rek dernière émission bi lan la wax dama na bàyyi xel ci Cheikh Tidiane Dièye waxoon naa la ko noonu non non non c'était avant candidature yi mhm. boobu Cheikh Tidiane Dièye déposé wul candidature man na bàyyil xel ci Cheikh Tidiane Dièye xam nga ban danger la Cheikh Tidiane Dièye am pour Pastef ak Diomaye mhm. Cheikh Tidiane Dièye moo gën a charismatique Diomaye xam nga Diomaye dafa am légitimité ci Pastef mais amul charisme Diomaye amul charisme. non charisme. Diomaye a de l'ancrage dans le passif. Diomaye est eh, li may wax ni xaaram wax ko ci wolof. Diomaye moo ëpp sañ-sañ ci Pastef Cheikh Tidiane Dièye hmm. mais ëppul charisme Cheikh moo ëpp charisme. yow laay déglu de. voilà moo tax ma ni la je ñoom nguur gi da leen a piégé au fait ci seen candidature yu bari yi. nan lañ leen piégé au contraire. Ousmane Sonko dafa jël ay dispositions. dafa dafa jël ay dispositions ñu bàyyi ñëpp ñu jàll. loolu moo baaxul ci ñoom parce que premier tour bi raw gàddu la ñaar ñi raw ñooy dem deuxième tour soxna si. boo amee 35 pour cent fexe ba mu tas ci ñetti nit foo jëm. waa mais yéen attention c'est c'est li may wax nii c'est extrêmement dama lay wax benn. te gis nga seetu jaajëf li mu wax nee na kenn neewu ko mu renoncé renoncé wul moom fex Ousmane Sonko mooy allié et cetera et puis euh, soxna si <laughs> yow pour yow Ousmane Sonko waru naa dénk kenn nguur gi. ndax. dama lay laaj dama lay laaj ci xel nañu nañu wax nañu xel. am na analyse yu jàpp ne <laughs> Ousmane Sonko bu ah. sañoon. Hmm. Bassirou Diomaye du dem parce que ce sera la fin pour lui. dama lay wax li gën a garaaw Adama baro bi muy nekk président Gambie dañoo tëj leaderu partem ñu daje opposition bi ñu voté wax ni dañuy choisir kenn ci ñoom. kooku bu mu ko choisir bu gañee dafay génne prisonnier politique yi yépp après mu def trois ans defaat élection yu bees léegi Adama Barrow naka la mujjee euh, paa bi nu mu tudd sax encore. <laughs> voilà même oublié paa bi paa bi nu mu tudd encore moomoon parti bi. <laughs> honnêtement je n'ai pas le bi affaire bi lu com lu compliqué mais dama lay damay attirer sa attention même même Habib Sy bi nga xam ni peut-être euh, Sonko daf ko jox ay député xalaat ni xëy na mën a def benn man mandat dem yoonam bis bu toogee ci fauteuil bi ñu lënga tëggal ko junj gi. Hmm. mu dugg ci avion Macky Sall bu neex bi nga xam ne avion bi boo ci duggee macha allah. Ah, avion bi moom ah, nga xool affaire yeeg yooyu. <laughs> avion mu dem gis Ba Joe Biden nuyu ko dugg Maison Blanche ñëw. Ah. bu ko Sonko xoolee rek am problème.